ñu ngi nuyu bépp auditeur u FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 euh, point 5 rawatina seen mission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 euh, heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen mission sociale toute la ville en parle dalal Yankoba Sagna nekk membre actif bu regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal nekk tamit coordonnateur bu bu regroupement en Casamance ñu fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni ndaw yi euh, ñu ngi koy am pour am liggéey file ci Sénégal rawatina ndaw yi nga xamante ni euh, dañu jàng ba pare am seeni euh, lijaasa gis ngeen fan yi njiitu réew Sénégal mi ngi def ay proposition yu bare bari jëm ci jàppale ndaw yooyu yooyule ak tamit bànqaas yi nga xamante ni ñoo fi nekk pour jàppale ndaw yi ngir ñu am xëy lépp daañu ko waxtaane tey ji ak suñu invité bi le di Yankhoba Sagna ñu ngi koy nuyu di ko dalal jàmm Euh, di lay fay Ndeye Comba Moreau mm. di leen di jaajëfal effectivement. maa ndekkee goo yow. <laughs> ndekki naa sax mais xam nga rek ndekki euh, diplômé sans emploi moom café la ak beñe café ak beñe voilà yow mi am ak gàttal bi ci bunt bi gis nga lu ma doon ndékkee dëgg la fukki dërëm ak euh, tasse café mm. voilà di remercier vraiment réew euh, Rewmi FM mm-hmm. en particulier yow mu nga xam ni yaa ñu may opportunité bi pour ñu mën a wax ci tuur ndaw yoo xam ni jàng nañ boo am seen lijaasa ba pare am problème xëy si Sénégal gi voilà Yankhoba tey ji ñu leen di laaj regroupement sans emploi euh, fii ci Sénégal kañ ngeen ko sos exactement donc euh, Sénégal yi bari loolu mooy seen problème parce que dañu yaakaar ni regroupement bu bees la mhm. euh, ba xam si ñun la commencé non regroupement bi ñu ngi ko taxawal depuis le vingt cinq août euh, deux mille mhm. boobu dafa am ñu ñu jiitu woon mhm. ñu nekkoon ak ñoom université ñu ñëw gis ñu boobu ñu ngi def soit première année deuxième année licence man mi ma doon fekk may def licence c'était en 2011. Mm -hmm. muy ay grand frère yoo xam ni nekkoon nañu ci troisième cycle mu ngi juddoo faculté euh, de droit mhm. ñoom euh, Babacar Ndour ñu ngi leen di nuyu de passage léegi génn na ci situation bi mi ngi euh, <laughs> comment que ministère des affaires mhm. di koy nuyu au passage donc ñoom ñoo créé woon regroupement bi mhm. parce que à l'époque à la veille des élections 2012 Ablaye Wade euh, mu amoon ay promesses yu bëri yoo xam ni. Mhm. defaloon na leen ko. Mhm. promettre euh, emploi les jeunes. Mhm. surtout les diplômés di supérieur. ñu dem ba nekk troisième sic ñu confronter toujours ces même difficultés situation bi réglé si la ñu taxawal kuréel bi donc euh, ñoom bu ñu demee ba ñoom la plupart d' entre eux ñuy inséré wu ñeneen ñi am financement. ñeneen ñi génn dëkk bi ak yooyu noonu donc euh, mouvement bi nekk après 2012 ci benn silence total. Mhm. donc mu dee woon. Mhm. ñu ñëw ba 2019 effectivement euh, Yves Jallet moo xam ni tey mooy suñu coordonnateur ñi ay mhm. lieutenant gisaat ñu ne ñu attention bu ñu nekkee di def bi euh, licence ou deuxième année ou première année dafa am grand yoo xam ni ñëwoon nañu démarché. pour ñu ñëw doole leen. parce que situation gu ñu nekkoon à l'époque situation boobu mën nañu fi fekk euh, tey. Mhm. donc àdduna dox na ba situation boobu moo ñu fi fekk. ñun tamit am nañu suñuy lijaasa am suñu licence suñu maîtrise euh, ñeneen nekk cycle doctoral. Mhm. mais ba tey situation bu amoon 2011 moo fi nekkaat donc moom moo présenté waat. Mhm. maanaam ñu jàng ba pare. jàng yor suñu lijaasa dugg ci école de formation yi effectivement encore pour dooleel encore yokk suñu qualité qualités CV problème bu posé waat fii donc Yves Jallet bu mu ñu gisaatee ne ñu vraiment il faut que ñu taxawaat remobiliser waat dekkilaat euh, euh, regroupement bi. Mm. donc si la ñu ko lancé officiellement encore une deuxième fois en 2019. Mm-hmm. donc depuis boobu ñu ngi xeex te ñu ngi def ay démarches. parce que ñaata ñaata membre ñoo nekk ci biir euh, regroupement bi. tey plateforme regroupement bi mu ngi def plus de. officiellement officiellement ñu nekk ci suñu plateforme. Mm-hmm. ñu ngi ci 7800. donc dernièrement buñ ko kiyee donc mën naa la wax jamono ji nii nii nii moment bu may wax ni ak yow mot nañu huit mille parce que chaque jour chaque minute gars yaa ngi adhéré parce que xam nañu lan la ñuy xeex te mi ngi leen concerné fu ñu nekk. Mhm. mais euh, di xeex daal mais est-ce que euh, gis ngeen ni 2019 bi ngeen structuré waate le regroupement euh, est yan ak yi ngeen si am ñan ñoo ñëw bokk ci regroupement bi quelque temps après peut-être ñu am chance am liggéey. mooy problème. mais mais mhm. ñu am chance liggéey. ok mooy problème fondamental parce que bu ñu dékkilee regroupement bi. Mhm. Eh, xam nga rek suñu autorité publique yi. à mhm. chaque fois bu amee kuréel bu taxaw. soit dañuy naan eh, daa am opposant bu nekk seen ginnaaw ou choit eh, dañu bëgg a xeex nguur gu fi nekk. Mhm. mu di ay complications yoo xam ni jànkonteel nañu ko sur le terrain. c'est très dur quelquefois da ngay bind lettre une autorité mu méfier wu lan moo tax mu méfier wu tout simplement parce que day bañ moom ku ko ilif yaakaar ni mu ngi créé benn mouvement boo xam ni pour dooleel ko la wala pour xeex mhm. euh, ay membres am yoo xam ni ñoom lay xeexal peut-être ci localité am mu doon ay difficultés yoo xam ni ñu ngi koy noté effectivement yeneen difficultés yoo xam ni ñu ngi koy rencontré mooy ndaw yoo xam ni sax ñu ngi ci même situation que nous te ñi far peut-être ci gouvernement bi ñoom seen situation bugguñu ko fi jëlee mhm. parce que lan la ñuy wax man maa ngi soutenir tel politicien mhm. te maa ngi yaakaar ci moom mhm. donc yaakaar googu noonu est-ce que su ma leen ñooy rejoindre dinaa am lu ma bëgg mooy beneen difficulté ba tax na tey mën naa la wax fu ñu toll nii mhm. xanaa ñoo xam ni euh, dañu dugal seen bopp wala ñu dem reconverser wu def leneen mais en terme matériel mënuma fi ne autorité publique yi defal nañu dara ba fu ñu toll nii. maanaam daal bi ngeen ko taxawalee. muy mhm. gën a am doole. Mhm. jeunes yi di gën a adhéré di si mhm. gis seen bopp parce que il faut le dire jeunes yu bari jàng nañ ba pare. xamuñ sax fu ñu jëm. Euh, donc euh, autorité état yi dañ leen jàppee comme ay opposants su ma déggee ci li nga bëgg a wax. si waaw wala da ngeen oppos opposition moo nekk seen ginnaaw. Euh, mooy lu ñu taxé. waa mooy lu ñuy taxé. mais aussi il faut reconnaître que ñeneen ci ñoom ubbi nañu seen bunt. Euh, ba tey mën naa wax ni ñu ngi en partenariat avec euh, la direction de l'emploi Pa Modou Fall mhm. euh, ñu ngi koy remercier aussi parce que signé nañu benn partenariat boo xam ni ci lépp lu muy yëngu dinañu consulter lu ñu si lu ñu yëngu aussi dinañ ko wax effectivement ñu ngi ci li mhm, mhm. comme le directeur aussi euh, euh, Prodac muy mm aussi ñu ngi koy remercier ubbi nañu buntam defal nañu koy proposition wax nañu lu mu man ak lu mu manul mhm. mais aussi ñu ngi koy déglu donc le médiateur de la république aussi ubbil nañu buntam rencontré nañu ko en maintes reprises aussi euh, sensible na aussi suñu cause ñu ngi dox ay jéego ci lool noonu ak ñeneen ak ñeneen. mais mais am na ñu naan ñoom Ives duñ ay chômeur de maanaam yéen ñi si kaw du ngeen ay chômeur. non xam nga loolu da nga koy dëggal waa wala déet. xam nga tey am nga am ngeen si lu ngeen jàpp. mais xam nga tey ñun du ñu ay yaafus. soxna mm, si. Mm. xam nga yaafus mooy koo xam ni jàng na ba pare. Mhm. yor ay lijaasam toog kër ga di yuuxu. non ñu du ñu doxee noonu. yéen nu ngeen di doxee parce que eh. yéen ñi jiite regroupement bi nee nañ du ngeen ay chômeur de. man de kenn gënuma doon chômeur. soxna mm, si mm, ci naka. université fu ma nekk fu ma dox. Mm. xam nga gars yi la lañ may wooyee. du chômeur ambulant. chômeur ambulant. chômeur ambulant. Mm-hmm. te boo demee université xam naa min nga université Cheikh Anta Diop. boo fa demee couloir de la mort. Mm-hmm. ñaati xale yu góor ñoo lay di leen naan photo. Mm-hmm. wala ñu lay jaay formulaire mhm. wala ñu lay jaay bikk di lay jaay mouchoir di lay jaay euh, comment dirais-je euh, protège mhm. mooy max yi masque yi mhm. mais ñooñ ñëpp boo ci ñu fay coiffé ñooñu ñëpp quatre-vingt-dix pour cent ñu ngi toog ak seen maîtrise ak seen maîtrise ñu ngi yor seen lijaasa say boo pare xam nga lu fi gën a dañ dañu lay gis ngay jaay mouchoir ñu ne noo yaa ngi liggéey mais jaay mouchoir laajul jàng ba yegg université bu fekkee loolu la donc sem de déjà mun nga dem jaay mouchoir mun nga jaay max te mooy les travaux yoo xam ni précaire yoo xam ni diplômé ñoo koy def mm-hmm. demal Sandaga demal Petersen ñu fa nekk ci Filipari bi Colobane laa jógee nii parce que bu ma yéegee ci oto bi mm-hmm. dafa am benn xale bu jigéen bu yoroon taas café tuur ma café am mm-hmm. donc du chemise bi laa soloon mais il fa fallu ma dem daw dem Colobane pour jënd fa kii ku ma jaay chemise bu ma sol nii diplômé chômeur la xam naa ko bu baax moo ma gitu université maîtrisard la mais bu ma ko waxee damay dem kii mu naan ma kaay ma jaay la ko téeméer 2000 lay jar. Mhm. mais ñooñu noonu est ce que di nga leen ne tey ay chômeur est ñoom bu ñuy jàng c' pour ñu dellu ci marché. di informel bi que nekk ci informel bi ci flipperie bi. donc man ku ma ne du ma yow ak ñoom Yves lu ngeen di def yéen. man lu may def ay chômeur ngeen. dafa yomb man lu may def. waaw boo demee université laaj leen xam nga lu may jaay université. Mhm. masque laa fay jaay. mouchoir laa fay jaay bic laa fay jaay ay document lay ne di ko fay jaay. te yow ba yaa ngi yegg ba ban. maa ngi am sama master de master 2. mais difficulté moo tax duma ma inscrire u tey parce que kooku beneen difficulté bu may xaaraat. ah bon waay si si naka foog nga expliquer un peu. mais. am nga sa master de mhm. mais sax noo inscrire pour sa thèse. mais thèse dafa laaj xaalis dafa laaj temps. Mhm. dafa laaj xaalis laaj temps. yooyu noonu te boo paree nga am ñoo xam ne yaakaar nañu ci yow. Mhm. mais université Cheikh Anta Diop d' abord boo boo ci duggee sa première année. Mhm. bara nga am sa master 2 ba oytu dafa dix ans. Mhm. boo oytu defa dix ans parce que benn année scolaire di nga ko def deux ans. boo ko multiplier par cinq ans yu nga fa war a def pour am marché deux chaque nga def ko deux ans. nga def ko deux ans. pour ñu am chance. <laughs> effectivement. mais ñooñu noonu boo fa waree def dix ans ñu ne la thèse nga war ko defaat cinq ans. quinze ans ci université kooku du fekk nga màgget mhm. te fii liggéey administration lan la ñuy wax concours yi parce que léegi vérifié nañu ko mhm. boo amee trente ans ñu ne la mënoo def tel concours mhm. te baraa nga am master 2 rek am nga trente cinq ans cinq ans kooku est-ce du difficulté baraa nga am sa doctorat dépassé nga quarante ans ñu ne financement yi quarante ans la yem beneen difficulté ngoog tamit donc mooy c'est des yoo xam ne ñun ñu ngi koy jànkooteel donc ñaa côté googu ne te bu ñu nee ñun duñu ñu ay chômeur parce que lall ñu ngi jënd chemise ñu ngi jënd dàll ñu ngi siire suñu dàll mais dañuy ut si nuñ jàpp loolu moo tax ñu ne la ñun du ñu yaafus du ñu tëdd di nelaw ñoom seen soxna si man je suis mhm. am doom mhm. kenn joxaluma sama dépense pourtant sama mouchoir yooyu lay régler situation yooyu noonu est-ce que man bu may jàng c'est pour au juste ma jàng am sama certificat am sama BFM am sama bag mhm. am sama licence am sama master 2 di dàqi doctorat ñu naan ma demal demal jaay li mais demal entreprendre ainsi de suite mais entrepreneuriat ñun ci la ñu nekk mhm. mais ñun lu ñu laaj état bi dafa yomb comme kii fonction publique yow da nga pour say militant léegi jox ay financement ñun ñu demal suñu bopp loolu gën te yomb si kanam sax dinañ ci ñëw ci lool mais si moment bi nga xamante ni euh, ñu ngi gis les jeunes surtout diplômés mënuñ sax am estage ci entreprise amuñ sax fu ñu xëy comme ni nga ko waxee ñu ngi ci secteur informel bi ñuy gis ni am na ñoo xam ne nañu yokk lage de la retraite yóbbu ko ay soixante cinq ans naan soixante dix ans yow loo wax si loolu. Euh, gis nga tey ñooñu noonu sax. Mm-hmm. te boo demee ci administration bi mooy le plus grand problème. Mm-hmm. troisième âge nga fay fekk. Mm-hmm. ñu retraité ba pare ñu jëlaat leen fa dëj leen fa. ñi doxal fonction yoo xam ni tey ay jeunes mérité nañu ko te ñoo gën a nekk au diapason avec les nouvelles ñoo ñu noonu demal ci administration bi des fois nga soxla benn affaire danga leen di tim pour ñu saisir la sax sa tour sax laa la wax ni dañuy loxo ci clavier bi mais loolu ñun dépassé nañu ko parce que ñoom moment bu ñu duggee ci administration peut-être nouvelle technologie amul am loo xam ni tam ñoom mënuñu ko ñun ñoo ci toll donc ku ku liggéey ba nga jot âge de retraite war nga mën a génn pour ñu yéeg escalier sa problème la bu ñu xëy ban heure la ñuy xëy 9h baraa ñuy ent baraa ñuy entamé sax 10h passé na 13h ñu ne jël nañu pause. ci benn 5 non bu ñu ko waree saisir sax def nañu fa 2 heures de temps est-ce que ñooñu noonu président de la bi ñoo moo xam ni tey euh, en 2012 bi mu uti réew mi ci jeunesse bi la compté woon promettre ñu un million d'emplois est-ce que kooku tey du ñun la war a gën a privilégier insérer ñu que mu téye fa ay pas. mais yéen moment bi ngeen di gis ay syndicalistes di wax nañu yokk âge de la retraite yéen lan moo tax taxawu leen xeex pour âge de la retraite boobu ñu bañ ko yokk au moins sax dañ ko war a wàññi pour jeunes yi mën a am xëy. mais boo xoolee suñu page Facebook nga xool suñu archives yi nga gis ni ñun on a toujours dénoncé cela organiser organiser nañu fii ay meeting kii comme astafurla ay sitting ay conférence de presse. Mhm. ay marche di dénoncer loolu ànduñu ci. parce que xale du nekk di fëgg bunt mag naan bunt bi duma ko tijji man maa fi des c'est ça le problème. Mhm. mag yooyu fa nekk bëgguñu fa génn te mhm. état bi moo leen di gën a dooleel di leen di réconforter ci position yooyu ñu nekk ñun on a toujours dénoncé ça nanguwuñu ko. mais est-ce que gisoo leen ni seen xeex bi dafa des yéen. ci ban fànn. parce que porta porte euh, combat bi ngeen porté. noobul na. problème bi ngeen di am mm. tout le temps moom la ñuy waxtaanee mm. mais est-ce que tamit munoo leen woon gën a manifester ba état bi mën a taxaw ci jafe-jafe ndaw yi ba ñu yëg leen carrément di organiser ay marches ainsi de suite soxna si waaw président de la république Macky Sall mm-hmm. moo gën a xam ñun fa ñu nekk parce que ñun yëpp ñu ngi en écoute ñoo gën a xam ci lu ñu yëngu mm-hmm. ñu nekkuñu ci clandestinité dañu am suñu récépissé am suñu siège état bi démembrement mi chaque jour ñu ngi ñuy recevoir donc ñu nëbbatuñu te ñu ngi leen di bind chaque jour di leen di jox ay proposition mm. suñu xeex bi desul mm. dañoo taaxamlu rek président de la république euh, le trente décembre génnoon na ne moom du gis couleur rouge avant cela même 2019 newoon na jeunes yi dañuy nekk ci grand place yi di naan ataaya. ataaya dañu feeña. voilà te ba mm. dañoo feeñaak. boo pare ci grand place yi la ñuy nekk di critiquer. Mm-hmm. kooku duñu ñu la ko lancé woon. parce que la veille le 29 dañoo génnoon def sortie mhm. di doon ne dañuy dem ba ci gris palais yi parce que ndaw affaire yi fa lañ demoon di kaas benn affaire ñu ne ko ñun dinañ fa dem xamal ko ne effectivement existé nañu si la def sorti boobu mhm. bu ñu génnee 31 décembre bi passé mhm. le 30 mu ne moom du gis couleur rouge que cette forme de manifestation est révolue ñu xool beneen voilà nañu xool beneen parce gisu ko. gisu ko mhm. te pourtant fu mu dem fu ñu koy gàttandu si pays yëpp yu muy dem que ça soit à l'Élysée à la comme Maison Blanche ou beneen pays bu mu dem bu ñu koy recevoir lu ñu koy lu ñu koy lalal du tapis rouge mais bu ñu koy lalal tapis rouge dina gis le rouge mais si ça c'est la manifestation et la colère des jeunes moom du gis rouge heureusement ba léegi gis na rouge ba répondre na ci. Mhm. voilà. ayca mi ngi noonu ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle euh, tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, Yankoba Sagna Yankoba Sagna euh, dañ lay laaj ci cause li nga xamante ni mooy le fait que diplômé yi mënuñ am liggéey pour yow lan moo ko waral exactement euh, formation bi moo baaxul niveau bi moo baaxul parce que gisoon nga sax temps yee euh, le ministre de l'emploi génnoon fi Dame Diop def benn sortie sax gars yi bëri doon ko critiquer mu naan sax problème de de l'emploi amul fii Sénégal déjà loolu c'est paradoxal mais pour yow euh, lan moo waral ndaw yi munuñu am xëy lan moo ko waral exactement pour yow surtout ndaw yi jàng ba pare surtout am seen lijaasa problème bi euh, pour situer ko di nga jël toute une page. Mhm. parce que ay segment la ay paramètres la. premièrement. Mhm. politisation des projet et des financement dans le recrutement aussi. Mhm. parce que boo bu ñu la falee fenn nga yaakaar yow sa moomeel bopp la premièrement sa doom ngeen njëkk a calculer sa jarbaat. sa entourage ak ñoo xam ni ñoo lay jàppale ci politique nga fàttee ni lu ñu la dénk Sénégal yëpp a ko bokk sa famille moomu ko sa quartier moomu ko sa euh, kii comment encore sa commune moomu ko sa département moomu ko sa région moomu ko mais dañu ne pour tout les Sénégal mmh. et bu ñu ne pour tout le Sénégal c'est pour les quatorze régions les cinq cent cinquante deux communes les quarante cinq département mm-hmm. loolu benn problème la parce que képp ku ñu déjà lu muy njëkk a calculer la mairie de sa localité ak nan laay utiliser caisse bi pour mën a dooleel jeunes yi nekk sama localité mhm. pour élection locale bi di ñëw ma mën ci am dara kooku benn problème la. Mhm. mooy politisation. politisation politique bi politique bi mooy lépp. Mhm. deuxième chose bi mooy euh, comme encore lu ñuy naan relation personnelle et recommandation. soit yoo xam naa la wala xamante nañu bu yàgg. am naa benn booy boo xam ni bëgg naa ñi financé ko ma ne ko ma woo la ne la ah am naa sama rakk boo xam ne nii ak nii la mais fu ma nekk jekkuwu ma damaa bëgg nga financé ko. Mhm. relation personnel yi la. Mhm. recommandation yi tey boo demee DER. nga mhm. xam ni moom moo yor euh, comme encore financement mais luy dugg ci DER comme autorité amul sa présidence. mais lan la recommandation yi la ak ñoo xam ni. yaakaar nañu ni peut ci financement yi la ñu mën a jaar pour mën a gagner seen localité. Mhm. il faut ñu dem gis directeur DER instant moo gën a siiw Macky Sall. Mhm. directeur DER moom la ñëpp di wër. no ñëpp di wër ci dëkk bi. <laughs> mais moo instant yi moo gën a doon star Macky Sall ci dëkk ah, bi. DER rek. parce que ku fi bëgg dara ku fi bëgg financement fa ngay dem ñun mii ak lu ñu mënti wax lu ñuy tourner tourner financement yi ñu bëgg fa la ñuy dem. Mhm. donc ñu ngi koy ñaan mu recevoir ñu heureusement dig nañu euh, d'ici la semaine prochaine dinañu recevoir. Mhm. parce que am nañu ay proposition pour moom. Mhm. parce que gis nañ bu mu fi nekkee ba léegi du ñu ne deful dara mais waroon na fi mën a dépasser. maanaam kuréel yooyu dañ ko teg comme par exemple DER rek yooyu. Mm. mais euh, du ñiñ ko war a jox lañ koy jox. encore politique bi moo duggaat foofu yàqu ko. loolu laa bëgg loolu yàgg nañu wax ni. Mhm. c'est des militants à la place des méritants. militants yi la ñu teg en avance. te ñoom la ñuy dem jox leen financement. ñoom la ñuy jox financement te loolu foofu ñu ko ñun on a des preuves ñun université lañ nekk. lan moo koy prouver. lan moo koy prouver. waaw <laughs> mais ñun ak ñoom ñu ñu koy jox. ñun ak ñoom ñoo bokk fu ñu jógee ñun ak ñoom ñooy toog di naan ataaya xam nañu ni ñoom si si si ñoom la ñu far. Mhm. man gis naa des jeunes yoo xam ne ñun suñuy projet nee nañu et puis chaque fois dañ koy wax suñu neuf projet mi ngi fa yoo xam ne mouvement des regroupe de regroupement des diplômés sans emploi ñoo ko fa mhm. déposé. Mhm. amul benn projet bu ñu financé. te gis nañ ñoo xam ni yàlla xam na ni binduñu sax seen projet mais dañ leen woo booy mënuñu la recruter fonction publique. Mm. xam nga la la waaw demal ci duumu monter la projet nga yóbbu ko dem nga dem déposer ko nga jox ma numéro dépôt bi mais yooyu noonu même pas un mois projet yi xoolal ñi financé ko fekk am ay projet sénégal yoo xam ne ñu ngi fa tëdd. Mm. ñu bind seen projet de projet bancables viables. Mm-hmm. yoo xam ne mën na apporter dara ci économie Sénégal. xooluñu ko xooluñu ko. mais c'est des problème yoo xam ne ñun chaque fois dañ koy dénoncer dañ koy décrier malheureusement boo koy wax ñu ne non dafa am ñu nekk seen ginnaaw te dañuy taxaw waat mhm. ne lii amul te pourtant lu am la gis nañu leen ñun ak ñoom ñoo moo tax ñu naan woy mais DERSA si boppam dañ ko war a auditer ñu xool ñaata nit la financé. ah bon dañ ko war a auditer parce que dañuy génne ay chiffres boo paree ñu naan non c'est des données personnelles mënuñu leen kii. tappale bi fa la commencé. parce que boo nee maanaam war nañoo xool lël ba ci biir. muy DER muy ANPEJ muy ay 3FPT ONFP. ANIDA ak yooyu ak yooyu foo xam ni dugal nañ fa kii mais Macky Sall bu mu ñëwee en deux mille en deux mille douze lan la waxoon. dafa hmm. newoon agence yi dañu bëri. il faut que ñu jéem a rey kii ko ANPEJ du si la si la tas ANEJ. Hmm. ASEP. kii euh, c'est pas ANAMA ak yooyu noonu. Hmm. Office band. Office band kii bon j'ai oublié certains. bari na bari na mu créé ANPEJ en 2014 DER 2017 mais nañu wax concrètement yooyu noonu ana plus-value bu mu indi par rapport. Euh, à l'emploi voilà l'emploi du temps ki l'emploi des jeunes par rapport euh, agence yoo xam ni ki yoon nañu ko fii supprimer woon nañu ko fii c'est des problèmes nañu leen auditer. effectivement ñi wax sénégalais tant de milliards la ñu financé ci ci jeunes yi tant de jeunes la ñu financé ñii la ñu formé lii ak lii ñun bëgg nañu ko xam parce que chiffres yi ñuy jox nii sur le terrain ça ne répond pas man maa ngi dëkk au fin fond de la Casamance te fu ma dëkk bu ñu nee sama commune financé nañ ma fa tant financé nañ fa tant de jeunes man je suis bien placé pour ma ne c'est faux maa ngi dëkk ci dëkk gu ñu naan kagit mhm. jeunes yu fa nekk tey lan lañ fa am comme job gor àll Mm. defar four. Mm-hmm. ñu ci génn tuuti ku ku ci am par exemple benn trois cent mille nga dem centre centre ville bi mooy Ziguinchor jënd sa Jakarta di Jakarta. Mm-hmm. loolu mooy emploi yu fi nekk. loolu kese lañ am lu ñuy def. loolu kese. Mm-hmm. moo fa nekk surtout les régions. amul benn opportunité beneen bu dul Jakarta dans les régions. dix heures bu jotee na ñëpp dem ci kiosque pari foot yi. week yi moom pari foot yi la ñëpp ay gaare seen Jakarta dem. ci kiosque yi dem pari foot. moins de dix huit ans yi sax loolu moo fi nekk. mais parce xam nga pari foot tey boo koy def jaarul yeneen jàng. te ñu ngi ci gis seen bopp bu baax. entreprise boobu sax est-ce que nekkul di doxal état bi <laughs> parce que état bi est-ce que ci. ci lu muy lim comme emploi nekkul di limaale. emploi pari foot yi waaw parce que ñu fee dem gars yi dañu leen jàpp comme employé ah. ah bon dañu leen dañu leen compter ci seen emploi yi <laughs> ah, ci kàrtum xaalis bi mais mais mais ba lan hmm. moo euh, waral euh, surtout boo jegee université hmm. pour nga intégrer le monde professionnel hmm. directement ça pose problème loolu lan moo ko waral euh, est bokk na ci waaw foofu y a deux problèmes le problème c'est le problème de la formation boo xam ni ñoom dañ koy wax tout le temps gis nga employabilité ça ne à la à comment ko à mhm. parce que ñun programme bu ñu état bi tegal programme boobu la ñu mën a suivre l'appreneur amul droit ne état bi changer lii ak changer lii parce que état bi moo xool moom lan la soxla pour développer Sénégal mhm. mu teg filière yooyu noonu au niveau des universités au niveau des lycées au niveau des CEM au niveau du primaire mhm. ñu suivre crisis boobu mais boo jàngee boo nga am say lijaas ba pare ñu ne la non il un problème d'adaptation entre l'emploi et l'offre kooku boobu problème kan moom moom problème boobu est-ce que c'est l'appreneur c'est c'est l'État c'est l'État ñoo war a changer seen système ñoo war a seen système et puis ñooñu noonu ñi naan parce que da ngay pare université demaat encore ci école de école de formation mais loolu moo ñu dal pour mën a intégrer le monde professionnel mais loolu moo ñu dal man j'ai fait six ans l'université après université ma dem defar trois ans école de formation utaat beneen master professionnel nga nekk dix ans ci pour am benn par exemple qualification professionnelle. mais am koo xam ne moment boobu trois ans la def. trois ans la def am qualification. mais ñun bu ñu amoon moyen bu ñu amee bag loolu nandoon nañ ko mënoon nañ ko dem def mais boo amul parent goo xam ni mën na la defar raccourci boobu noonu mais lan ngay def université ngay dugg. boo génnee ñu ne la problème d'adaptation par rapport à l'offre moom nga am kenn du la nangoo jël kenn du la nangoo te patronat Sénégal bi état bi dafa complice ñoom parce que état bi mënu fa dugal xaalis boo pare. Mhm. patronat bi di taxaw di naan non jeunes yi formé wuñu leen bu baax. Mhm. mais ñoom lan mooy seen. responsabilité waaw maanaam nañ ko wax que seen formation dafa des bëggoon naa si ñëw sànq sax. voilà waaw mais ñoom lan mooy seen lan mooy seen responsabilité ci doxal Sénégal parce que boo recevoir xaalis état pour lu ñuy naan relation état employeur mais xale xale boo ko jëlee. Mhm. nga bëgg yow mu defal la telle tâche. mais encadré ko ci loolu noonu à l'interne chaque jour nga xamal ko lii ak lii ak lii ngay def lii ngay def lii da nga koy bàyyi lii da nga koy bàyyi lii da koy bàyyi parce que ñun suñu système éducatif bi da ngay jàng boo doctorat sax benn yoon doo ko am estage mm-hmm. mais ku musul def estage nan lay mm-hmm. amee expérience mais kooku noonu bu demee ci entreprise entreprise bu ko soxla xam na ni kii déjà il a les diplômes mm-hmm. te ku jàng boo université kooku pour adapter ko ci benn fonction dafa yomb il est intelligent mhm. bu intelligent loon du jàng boo am BFM jàng am bac am licence ak yooyu noonu mhm. maanaam lan moo tere même boo jógee université ñu jox la chance nga def say stage mais c'est ça nga mhm. def estage à l'interne mais bu fekkee un an sax boo pare ñu doog la am boo embauché mais ñoom dañuy bëgg benn produit bu fini nga jógee université des déjà opérationnel loolu mënta nekk même ñu nekk ci école formation professionnelle yu ñu naan école de formation professionnelle ne ma ban école formation professionnelle moo fi am entreprise di former ay nit boo paree di leen di yóbbu ci entreprise bi ñuy def kii bi. pratique mhm, ah boobu mhm. ça cause problème boo paree dañu naan des formation qualifiantes ainsi de suite. c' le lieu de féliciter même euh, le professeur Mary Teuw Niane parce que côté boobu def na si ay jéego avec les ISEP yu mu créé. Mhm. mais mais benn jour euh, le ministre Dame Diop mu ne euh, amul Sénégal yow loo koy tontu ci loolu. Euh, Dame joob respecté naa ko lool te dem naa ministère am lu bari. Mhm. xam nga loolu bu ko waxee mooy yàb jeune sénégalais yi. mooy yàb ñu ñun ñoo xam ni jàng nañu déjà ne ñu ngi nii di wër job. Mhm. ba wër job sax wax naa ko fen ñu meree man ne la ñun dañoo wër liggéey. boo wër liggéey moom mujjee doon ñun suñu xëy. Mhm. parce chaque jour. sama saak bi nii nii nii su ma ko tijjee y' a plus de quinze CV. Mhm. fu ne nga yóbbu. entreprise Sénégal yëpp xam nañu ko. par tête boo ma wax boo ma nee tel entreprise moo wax la fu mu nekk rii bu mu nekk. fépp dem nga fa déposer. fépp dañ fay déposé mais stage boo amul recommandation ou bien relation personnelle stage sa laa la wax ni doo ko am loolu moo fi Sénégal stage yi sax léegi. laa la mhm. wax ni da ngay neexal nit ki. pour am stage pour am estage da ngay neexal nit ki boo paree tegal ko ne ko sax dama lay liggéeyal gratuit te doo ma fay bul ma fay dara bul ma fay bul ma jox paas ma ñëw expérience laa bëgg. expérience rek laa bëgg doo ko am entreprise yi sax bay dem ay entretien xam nga la la ñu lay wax. Mm-hmm. ñun duñu jël ko amul expérience cinq ans. Mm-hmm. mais kooku du blocage. cinq ans. cinq koo xam ni jàng na université musul am benn stage. nga laaj ko expérience. cinq ans nga laaj ko expérience. professionnel professionnel. cinq ku mënu mais koo joxul sens nan lay amee pro kii comme encore expérience ñun expérience de la rue la la ñu nekk man tey maa ngi ci multi service di tirer di kii yeneen te lu ma maîtriser ci loolu noonu tey su ma demoon fenn dinañ ma laaj diplôme ni na ma diplôme lii mm-hmm. aw ma diplôme bi mais am naa kii expérience boobu te parce que tey lu may def du bokkul ci lenn loo xam ni moom laa jàngee université yi université la laa fa jàngee mm-hmm. droit science politique management Cheikh Anta Diop mais tey su ma demee di laaj benn affaire dinañ ma laaj expérience cinq ans waxuma ci ban université Sénégal bu am euh, comme encore faculté de droit ñu ne la faculté de droit bi. Mm-hmm. bu ñu tollee année de licence dañu leen di yóbbu telle entreprise wala tel cabinet ñu def stage amul. amul am na fa des kii comme encore euh, des masters privés des licences professionnelles yoo xam ne ñu ngi ci université publique yi. Mm-hmm. mais dañu ce que de nom. amul kenn ku nekk ci branche professionnelle dans une université publique fii Sénégal boo paree di def stage yaa koy ñàkkanteel sa bopp loolu moo fi nekk. mais mais tamit bu ñu jógee ci université lu tax souvent étudiants yi suñu jógee foofu du ñu mën a am euh, xëy euh, tamit dañuy dem ci école de formation yi tamit ça pose problème parce que actuellement école de formation yi bari na euh, ba partout te tamit léegi apparemment dañuy former rek di teg. parce que amatuñ entreprise bu leen jël dañuy former euh, alors que euh, parent yi wala jeunes yi wala état bi ñu ngi fay lu cher et cher ci école de formation am ñoo xam ne sax amuñ moyen mais dañ koy def comme li nga expliqué parce que xam nañ ni université boo fa génnee directement pour nga am liggéey ça pose problème te université tamit euh, foo war a def un an def fa deux ans wala trois ans tamit ça pose problème école de formation yi léegi dañuy former di teg loolu lan nga ci xalaat. système boobu noonu école formation ak création boobu di kii comme encore euh, de beaucoup d'écoles de formation mhm. kooku combine la rek avec l'État mhm. parce que école de formation yi fi nekk soxna si mhm. quatre-vingt-dix pour cent des écoles privées ñoom ñoo ko moom état bi ñoom ñoo ko moom nos autorités ñoo koy créer prête non rek ñi teg fa kenn ñu nekk ci nguur gi parce que à un certain moment nguur gi day naan waa du ma mën a orienter ñëpp dans les universités publiques donc dama leen di yóbbu privé si la ñuy profité tijji école yu bëri xam nañ ci lu bare bu ñu weetoon ma lii ma la au moins une quinzaine yoo xam ni daf ma leer ni mhm. ñoom ñoo ko moom lan la pour gagner marché de ces étudiants heureusement ba lu euh, le nouveau ministre ñëw na régler na question boobu ne dootu orienté waat dara ci ci école privée yi mhm. parce que ñoom ñoo ko moom. biñ ne université dafa fees. dafa fees si la ñu daw di créer ay. école privée te lu ñuy jàngale ci école de privé yi. Mhm. je t'assure wallaahi seen programme bi desee na baax. desee na depuis ñaata at ñu ngi naan dañ koy audité mhm. dañ koy càmbar dañuy xool école privée yoo xam ni ba xam méngoo nag yooyu loonu fan la mhm. mujj doo ko dégg ñoo ko moom. pour gagner marché bi pour gagner marché bi. xaalis bi c'est du business sur le dos des Sénégalais boo taxawee ñu naan non. formation professionnelle c'est parce que ñu ngi inciter les jeunes ñi quitter ci ci université publique yi pour mën a dugg seen école yi mhm. bu ñu fa génnee te xoolal si seen système marketing ak yooyu noonu seen publicité dañuy naan non kii stage cent pour cent ainsi de suite mm c'est faux mhm. en réalité loolu amu fa mhm. donc muy beneen problème bu ñëw fekkaat problème université publique yi. maanaam euh, euh, institut de formation yi réglé wul problème bi. mënu ko réglé. mënu mhm. ko réglé parce que ñoom d' abord offre bu ñuy joxe boo xoolee c' est quoi c' est les offres qui sont dans les universités publiques où se trouve la différence les mêmes enseignants ñu nekk université. Mmh. ou les maîtrisards yu nekk université ñoom la ñuy recruter ñu nekk des enseignants dans ces écoles privées. benn doctorant lañ fay am wala ñaari doctorant ñu si des yëpp <laughs> ñoo xam ni am nañu seen maîtrise rek dem déposé ñu jéem a def business sur le dos des Sénégalais bizarrement c'est des innocents xamuñu dara ñu fay dugg new ma yëpp nag am na mm. fi yu baax yu taxaw mm. yoo xam ni ñu ngi koy teg ci yoon mais les quatre-vingt pour cent yëpp lu ñuy waxee lu ñuy waxee secteur informel mm-hmm. comme kii comme encore baana baana ak. Euh, ak njaay bi ci mbedd yi di mm. lal ci mbedd yi. yooyu école tam am na fi. yooyu tege euh, école ambulant. Mm-hmm. am ñu ngi fi. <laughs> ñu ngi fi te ñoom euh, ñoo fi ñoo fi ëpp ñoo fi dax def publicité mais mais da ngay gis ni ñoom souvent dañuy kaas pour état bi fay leen xaalis bu bari bi mu leen ameel. non seen biir la rek école yi. seen biir la rek. ay temps de milliards la ñu. non dégg nga ni fi duggaat seen biir seen poche yi lay jëm. ça leur arrange pas. léegi Yankhoba est-ce que yéen dem ngeen jéem. Euh, DER financé leen parce que nekk na loo xamante ne euh, xaalis askan wi la ay jeunes diplômés ngeen am ngeen seeni projet est-ce que def ngeen ay démarche euh, dem DER wala ngeen dem ANPEJ nga xam ne sax sorewuñu fii suñu côté est-ce que yéen def ngeen ko est-ce que am ngeen si ay résultat positif mais bu ñu amoo résultat positif man personnellement mhm. ak ñu ñu wër bu ñu amoo résultat positif kon joxe nañu lengi lengay mhm. foo taxaw di xeex deux ans ñi ñi xam la si xeex boobu te nga am fa dara boo fa desee soxna si. amoo dem ngeen deer dem nañu deer lu ngeen jëlee deer li ñu jëlee deer déjà rencontré wu ñu le directeur. mais qua même mi ngi ñuy prêter attention te semaine bi rek euh, secrétaire am woo nañu pour ñu recevoir ñu semaine prochaine. bind ngeen ay projet yóbbu. mais suñu projet ñu nga fa nee naa la neuf projet moo nga fa tëdd. DER ANPEJ mii nii fa la ñu njëkkee. bara création kii sax der sax ANPEJ man sama projet nga fa. ANPEJ def naa suivi boo sonn dinañ la woo. dafa jotagul ainsi de suite man xam naa duñ ma woo. c' est parce que du ma booy kenn. c' parce que ñëw ma ci recommandation kenn. Mhm. c' parce que aw ma fa relation personnelle ci kenn. dama ñëw rek déposer comme sénégalais bu naan way alal nguur gi la rek damay ñëw déposer pour mën a jot sama wàll. kon yow da nga jàpp ay DER ANPEJ ainsi de suite c' est juste ay pour affaire politique. soxna si ba léegi réglé wul le problème. soxna si. Mhm. ñoom lu ñu lay wax dañu ko teg ci firnde. am ay preuve moo tax it chaque fois bu ñuy def sorti dañu ne président na audité yooyu. Mhm. il faut gars yi teg ko ci yoon. Mhm. ñun nous sommes des sénégalais. suñu morom yi lu ñuy def di jël ay gaal di dem. mën nañu ko. suñu moroom yi yor même âge ak ñun di jël ay jaas yi di taxaw ci tali di agressé. Mhm. kenn ëpp ñu fit kenn ëpp ñu doole. Mhm. mën nañu ko def. Mhm. mais dañoo préféré topp yoon gu jub gi financement mi ngi tël bërëb. dem ngeen def ngeen li ngeen war a def nañu def nañu lu ñu war a def lu ñuy ñaan état bi. nañu uyu ñu ñun état bi waruñu négliger. parce que bu ñu santee jàng dañoo jàng. ba am suñuy lijaase ñoo ne état bi lu ñu santoon. def nañu ko. suñu devoir def nañu ko. léegi suñu droit moom la ñuy laaj état bi. mais mais nee nañ état bi mënul utal ñëpp euh, liggéey da yankoo ba gars yi nañu def comme ni nga ko waxee entrepreneuriat ut ay projet ainsi de suite parce que état munul recruter ñëpp mënul utul euh, mënul mënul utal ndaw yëpp liggéey. loolu loo tontu. loolu nangu nañu ko. Hmm. surtout ku génnee fac droit. Hmm. xam na ni état bi mënul utal ñëpp liggéey. mais état bi mën na créer condition. Hmm. ba ñoo xam ni am nañu projet bëgg nañu lancer wu dans l'entrepreneuriat ñu lancer wu ci. ah bi si loolu lay def di moom ñoom. de ñoom empêche mais boo ko defee di jeex di jeex ñu ngay jox. est-ce que kooku noonu yemale nga Sénégalais yépp mm. mais entrepreneuriat bi yemul ci loolu mais soxna si. Mm damay jël benn secteur boo xam ni c'est un secteur boo xam ni chaque fois dañ ciy jooy dañ ciy interpeller l'État. Hmm. xam nga les profession libérales Sénégal fu mu toll nii dañ ko verrouillé. Mhm. boo demee organisation concours baro bi bu amee baraa muy am. Mhm. quelquefois quatre ans de différence cinq ans ñii ñi dañuy dem ba fàttee ko. ba dem fàtte ko mu doog am. te bu ñu ko tijjee combien de place la ñuy wax. Mhm. ay dix quinze. te à chaque fois bu ñu tijjee concours yooyu noonu c'est des milliers ñooy déposé pour dix place pour dix places est-ce que loolu du arnaque. c'est ngay déposé ay dix mille dix c' est combien de millions mm. ñëpp joxe dix mille nga war a jël dix personnes nga war a jël dix personnes mm-hmm. mais boo xoolee tey huissier yi Sénégal est ce que xam nga ñaata huissier la am en tout cas bariwul cinquante trois mm-hmm. notaire yi ñu ne la cinquante et un ñoo ñoo gën a tee néew quatre cent avocats mm-hmm. Sénégal yëpp 400 avocats 400 avocats te du ñëpp ñooy exer te du ñëpp ñooy exercer. am na ñoo xam ni làqu nañu ci nguur gi donc ñoom dematuñu sax. ci ci kii yi. cour tribunaux yi. Mm. am ñoo xam ni nekk ñu Sénégal am ñoo xam ni entre gaañu nañu am ñoo xam ni ñu ngi ci université mënuñu boole enseignement bi ak ah, liggéey avocat bi. Mm-hmm. mais loolu muy ay kii yoo xam ni dañu ko fermer seen seen biir notaire yi ñoo am ñoo xam ni. Mm-hmm. réussir nañu concours. Mm-hmm. au nombre de vingt deux ñi war leen dugal. ba léegi mënuñu dugg parce que dañu ko verrouiller dañu ko tëj seen biir. huissier yi pareil. Mhm. te nan lañ koy defee su ma demee ba mënatuma ma insérer sama doom sans mu jaar par concours. Mhm, mhm. loolu moo fi nekk récemment gis ngeen le ministre de la justice nomination onze personnes yoo xam ni kenn ci ñoom jàllul concours bi. mu jël leen dugal ci fonction bi. est-ce que kooku dinañu ne tey Sénégal état de droit la ci loolu noonu ñoo ñoo ñoo ñu war a nekkal tey sur le terrain di ñuy àtte ci côté suuf ak leneen est loolu du tàppale. est-ce que ñun war nañu mën a jàng ba toll foofu ba pare di seetaan loolu est-ce que ñu mën a jóg yuuxu dénoncer ko fu ne. Mm-hmm. te pourtant dégg nañu boo leen waxee ñu ne non c'est des opposants dafa am ñu nekk seen ginnaaw bu fekkee nii la ñuy wu kon dinañu continuer opposé wu parce que xaalis gi ak euh, loo xam ni moom lañu leen jox. du ñu du seen moomeel. waaw ñu ñu gis ni récemment euh, surtout crise bi fi amoon quelque jours liés ak affaire Sonko xam nga ni euh, manifestation yi fi amoon euh, bari na njiitu réew Sénégal bi mu ñëwee pour woyefal mbiri sax moom reconnaître na carrément que ndaw yi dañ ko mere ci ñàkkum xëy beeg ñoom seen surtout comme li ngeen di wax ba tax mu lancé benn programme d'urgence pour l'emploi des jeunes ne dina si def trois cent cinquante milliards yow lan mooy si sax xalaat ci li nga xamante ni le président Sall wax na ko si mbir moom. Euh, loolu moom. Mhm. parce que nit aussi bu demee boo comprendre ni lu ma gars di waxal. Mhm. may temps xam lu vraiment doon nañ une réalité aujourd'hui mhm. gis naa ko gis naa ko. dinañ ko féliciter encourager ko jàppale ko dooleel ko ci loolu. mais nag yéex na ko comprendre parce que ñun bu ñuy yuuxu di di koy alerter boobu la ko waroon a comprendre mu ñuy sandi xer dañuy toog ci grand place di naan ataaya hmm. mu ñëwaat naan encore du gis couleur rouge boobu yëpp comprendre loon donc il a fallu qu'il y ait un soulèvement pour mu mën a comprendre ni effectivement il un problème d'emploi au Sénégal hmm. mais le problème doo l'emploi au Sénégal soxna si gis nga boo nekkee Dakar doo ko comprendre maanaam loo si wax am na loo bàyyi non boo nekkee Dakar hmm. wallaahi doo ko comprendre c'est occasion la sax ma remercier le cabinet Mor Dieng mu nga xam ni. Mhm. Euh, suñu partenaire la fàttewoon naa ko au début. dëgg la euh, joxoon ñu santoon ñu benn liggéey ñu les diplômés sans emploi euh, ci recommandation Zika en vingt jours def nañu les quatorze régions di Sénégal les cinq cent cinquante deux communes di Sénégal les quarante cinq départements on a fait plusieurs villages mais soxna si. Mhm. ndóol gu nekk Sénégal dafa jéggi dayoo. chômage bu nekk Sénégal dafa jéggi dayoo am ñoo xam ne boo toogee ak ñoom bu ñu commencé wax jooy. Hmm. ndekki xamuñu ban at lañ ko gëj a def bu ñu añee reer bi laa la wax ni négociation la soit fondé bu amul suukar. Hmm. ñu noonu nous on se demande est-ce que ñu ñu ilif ñu ngi yegg dans le profondeur. est-ce que gis nañ lii xam nañ gis nañu lii. am nañu ay maire yoo xam ne boo toogee ak ñoom mu ne mais comme le maire. Euh, Yoro mhm. koo xam ni frappé na ma mu yor di diriger dans la région de Kolda benn commune boo xam ni cinquante six villages am lycée am kii trois ci cinquante six villages yooyu noonu benn village amul électricité amul eau potable yow tu penses que loolu noonu tey ci Sénégal gu ñu nekk nii war nañu mën a nangu loolu pour nga gis ñoom tali oto sax bu ñu ko gisee laal wax événement la la oto bu ñu ko gisee événement la lan la ñu xam saret mhm. ambulance sa problème la ci saret yi lañuy ñuy la ñuy seen maladie mhm. soit nga jël mbaam takk ko mhm. sa sa gin yow yow yow muy jeune bi nga jël maire bi takk ko jël benn sagar takk ko ak yow nga war sa mbaam pour mën ko yóbbu ci benn district yoo xam ni bu duggee ci district yi sax je t'assure wallahi béy ñoo leen njëkk ak accueillir ci Sénégal googu la ñu nekk te pourtant bu ñu nekkee ci plateau yi bu ñu la décrire Sénégal nga yaakaar ni Sénégal yëpp gongo la mhm. te wallaahi man bu ma jógee ci àll bi laa ne mais effectivement est-ce que ñun sax am nañu ay gouvernants est-ce que ñii dañuy yegg foofu ba gis population bi souffrance gu nekkee ñu noonu comme man ñun ñoo jógee ci àll bi ñëw dakaar mhm. di ñëw kaas fii dakaar am na ñu fa nekk peut-être amuñu sens gu ñu bu ma mhm. am tey toog fii. di koy kaas parce que man fu ma dëkk. bu nawet jotee. oto pour mu dugg sama village je t'assure wallaahi problème la. Mhm. camion pour mu dugg génne mango yu fa nekk problème la mango yi dañuy nëb orange yi pareil leneen ak madd yi loolu noonu laa la wax ni pañe 1000 francs mais pour gis kuy jënd pañe madd mille francs koo fi wax Dakar du ko gëm. Mhm. panier madd 1000 francs lañ koy jaay sama dëkk. Mhm. mais gis. pour nga gis ku ko jënd problème nga gis ku ko jënd problème la. est-ce que man su ma jógee ci àll bi ñëw Dakar di gis étage yi di gis lumière bi partout loolu du dagg sama xol su ma amee fu ma ko ñaxtu du ma ko ñaxtu donc je parle au nom de tout c'est toutes ces personnes qui sont dans le monde rural mmh. qui souffrent et qui n'ont pas l'occasion dans les coins les plus reculés qui n'ont pas l'occasion d'être là crier et dénoncer certaines injustices euh, dans ce pays ñooñu noonu laa fi waxal ñun ñoo jógee ci àll bi ñàkk xëy ñu ñoo fi ñu ñuy teg injustice di ñi koy jox seen kii seen doom yi di koy jox seen jarbaati ak yooyu yooyu kooku boobu Sénégal équilibre lay créé frustration lay lay créé moo tax nag soulèvement bi nag il faut gars yi étudier ko ci ci ci angle boobu noonu mm-hmm. mais ku sonn ci àll bi ñoo fi di gis ki xale gu ndaw di dawal oto parce que lan la yaayam fii la bokk wala dafa am recommandation ñu jox ko yow nga yaakaar ni kooku boo amee occasion soulèvement am du ko fajee foofu mm-hmm. yooyu noonu fa lañ ko war a kii heureusement ba le président de la république. comprendre na loolu a compris a saisi le message a compris le le, le message. diggee na encore. encore quatre vingt mille milliards d'ici le mois de mai. Mm-hmm. kooku mm dans un mois. Mm-hmm. cent cinquante -hmm. milliards pour l'année dina recruter soixante cinq mille jeunes. Mm-hmm. yàgg na dig. recrutement gisuñ gisuñu mais cette fois si man de am naa yaakaar ci moom. am naa yaakaar que cette fois si il a compris le message te dina ci jublu parce que sénégalais sonn nañu Mm-hmm. surtout ñoo xam ne ñoo jógee àll. mais mais naka nga euh, décrire euh, misère bi am au Sénégal parce que pour man coin bi lu mu reculer reculer mm-hmm. euh, sénégalais bi dafa war a sentir boppam que sénégalais la si réew mi la bokk ainsi de suite maanaam warul jàpp ni man privé nañ ma lii ak lii ak lii parce que si gox bi laa dëkk ainsi de suite mais naka nga gisee li nga xamante ni mooy misère boobu am ici au Sénégal ci soulèvement boobu problème d'emploi déjà am ñëpp ñëpp xam nañ ko xëy moom moo gën a jafe Sénégal ñuy dem di saccagé ay entreprises yoo xamante ni euh, ay sénégalais lañ fay employé ñoo fay xëy di fa am loo xamante ni ñu ngi koy suturloo yow euh, lan nga si xalaat parce que affaire boobu yóbbu na chômage dina gën a yokk si li nga xamante ni moom mooy seen euh, regroupement boobu lay gis nga soxna mhm. mécontentement. Mhm. mën na la yóbbu ci lu ne. mécontentement mën na la yóbbu ci haine. Mhm. na la yóbbu ci un degré d'agressivité bu nga xam ni yow mii sax sa instinct sa yaakaaroon ni dina mës a tolloo foofu. gis nga boo gis nga ne dañoo meroon rek. mais mais maanaam lu ñu gux lu yàgg la quoi te yan yi dafa li dafa niroo maate ak ñaawalaate. mais day yokk chômage bi Sénégal. waa mais j'ai compris. Mm-hmm. kooku kenn rafetlu ko. mais boo ko waree analyser si beneen angle da ngay comprendre ni ñii lu ñu gux lu yàgg la imaginel man su ma dëkkoon. par mm-hmm. exemple sacré mm-hmm. te d'ailleurs sax awma moyen pour dëkk Sacré-Cœur mhm. comme léegi au Sénégal location bi appartement mhm. boo tegul ay cent cinquante jëm kaw doo koy am à partir de cinquante mille pukku man maa ngi am benn deux mètres carrés rek di koy di koy fay cinquante mille francs waxatuma une chambre maintenant voilà mhm. waxatuma dem dëkk ay Sacré-Cœur ak yooyu noonu mais imaginez man su ma dëkkoon Sacré-Cœur wala di fay def sama business mu ndaw di nekk ci buntu Auchan chaque jour ma gis ay 4x4 ay Mercedes di gaare di dugg ko génn. Mm-hmm. ñu yor ay mbuus ma am problème cent franc pour jënd ndekki. Mm-hmm. loolu noonu chaque jour ma koy gis di koy dund di koy gis di koy dund mais bu lii amee damay naan c'est l'occasion pour une fois ma dugg foofu ñam lu gars yi di fay génnee chaque jour. Mm-hmm. foog ma dugg ci Auchan bi. il ma dugg am fitu sax taxaw naan ñaata. non kilim kilim yi dañ ko doon séen. <laughs> si buntu bi rek ngay daaw di séen ay chocolat yu nekk ci biir ñoom xamuñu ko gerte caaf la ñu xam. Mhm. man bu ma fi yëg yàlla xam na ni yow mi yow bu bu may gàttandu lan nga ma gis. Mhm. du taas café. Mhm. bonbon bu ki dërëm laa ko laa ko booleel. loolu mooy sama ndëkki. keneen di dugg di génn par exemple benn demi. sachet ba mu fees chariot. walla effectivement chariot mu pousse ko ainsi de suite. mais occasion bi bu la fekkee ci wetu Auchan da nga naan non. foog mu dugg ci mais c'est une occasion ma dugg clim bi laal ma fraîcheur bi laal ma ma jël ci boisson yi jël ci kii moo tax nag xoolal taalibe yu ngeen gis. am nay taalibe am nay taalibe dem ba jël kii bi. yow xoobay jël jël ay canette ay canette dëtt di kay naan parce que la la. ba mandi mais ba ba mandi mais kooku lan moo koy expliquer dañoo kii xonet. ñu naan non tey occasion la pour ma dugg fi peut-être occasion bi. su ma jàllee ñemee dugg Auchan. dootuma xam Auchan lu muy saf. <laughs> moo tax mais taalibe la gars yi gis de. am na mm. magin jëm yoo xam ni. kanet yooyu noonu dañ ko doon lor mm. ñette jël nañ ko naan nañ ci. Mm-hmm. xam naa ci ñenn. xam naa ci ñenn parce que vidéo yaa ngi daw. Mm-hmm. mais kooku occasion la. imagine Pël Fuuta. maanaam daal dafa wane misère bi amoon ci dëkk bi misère la te loolu. gars yi bu ñu naan. Euh, benn force occulte bon entre parenthèses force occulte yi ñuy wax non no non hmm. famine la. Mm -hmm. ou soit soit mën naa ko jàppee benn famine occulte. Mm -hmm. famine occulte boobu noonu. Hmm. moo dugloo gars yi ci biir Auchan. am ñoo xam ni c'est des dignes personne dugg nañ fa sax xam ñu lu leen. dugguloo xam ñu lu leen dugguloo. xam ñu lu leen dugguloo am ñoo xam ni peut-être dépense kër ga gi jënd saaku ceeb bi ak meew bi yooyu noonu. tar na tar goo xam ni bàyyi ma dugg Auchan génne benn saaku meew. <laughs> mais moo tax nga gis des fois. ay nit dina duggoo woon sax. non est-ce que yow duggoo woon ci Auchan. non <laughs> non dugguma ma jege Auchan. Mhm. mais su ma fa fekkoon. Euh. du ma ne dinaa dugg wala du ma dugg. mais moment boobu noonu am ñoo xam ni dugg nañ fa xam ñu sax lu leen xaftal ba ñu dugg mais Auchan dafa neex lu fa nekk. Mhm. boo gisee kenn dugg ngay jéem a jaay noonu ma duma ma fa dugg ainsi de suite. Mhm. comme benn maire daje na ak moom mu ne wala yàlla waaye yàlla Ousmane Sonko yàgg kaso waaye ndax ma yàgg am meew <laughs> mais mais kooku noonu mais il faut ngeen comprendre ni xiif moo ko dugal ci loolu kooku noonu mënoo ne voleur la wala voleuse la. kon non du sàcc kat. Mhm. affaire bi nii. Mhm. bu yàggoon dina bëri famille muy arrangé message bi nguur gi waroon na ko gën a. décoder waroon jàpp xam ni gars yi dañoo sonn misère la dañoo xiif. gis nga ñun ñuy door yi daxee bokkoo ci Sonko sax yow. non parce que Sonko loolu la wax bi mu génnee neen Auchan yi ñu daaj ji sénégalais yi dañoo xiif. Euh, est ce Sonko. foofu noonu. ni hmm. sénégalais dañuy xiif dinaa ànd ak moom foofu. Hmm. man ko ma xam. Hmm. xam ni man du ma tricher su ma bokkoon ci Sonko damee naa ñi ñi dama bokk ci Sonko. Sonko ba tey ji nii nii nii xaw ma këram. ba tey ji nii musuma ko rencontré. boo tey ji ni ni musuma xam saison fu mu nekk bokkuma Sonko te yaakaaruma dinaa mës bokk ci parti am. da nga wax li nga gis. mais c'est un monsieur que je respecte bokku parce que tey bu ñu tolluwee président di wax di naan ay. su di six mois di reconnaître la souffrance c'est grâce à ce grand monsieur. bu ñu demee ba mu mobiliser tey cent cinquante milliards par année c'est parce que il y a quelque chose boo xam ni am na te monsieur boobu moo ko déclenché. te buy dem ba di recruter soixante cinq mille jeunes képp kuñ ci recruter na nga ko santé tam Sonko. Mhm. parce que il a fallu mu am li lu jógee ci son Sonko. pour tey état bi moom président de la république comprendre effectivement que jeunes yi sonn nañu te mu reconnaître ko. Mhm. donc foofu noonu dinaa ko jaajëfal bu baax. mais bokkuma ci moom bi jeex na te mënoon naa bokk ci moom parce que rakk moo yor sama jarbaat Espagne. Mm. waaw yow jege nga Sonko de ni ngay waxee nii. non non dama lay wax rek. Mhm. sama jarbaat ci rakkam la nekk Espagne. Mhm. mais ànd ak Sonko. wax nañu lu neex. Mhm. sama jarbaat boobu chaque jour mu am ma ne ko sawaay man par conviction laay demee ci nit. bokkuma ak moom gis-gis mais naw naa ko ci ci discours am. ci taxawaayam ci taxawaayam. ak nu mu éveiller la conscience des jeunes. voilà surtout mu permettre ay jeunes war ci am liggéey. est-ce que yéen euh, temps bi sax jeex na. Mhm. pare ngeen def fan yi marche wala ainsi de suite wala bu ngeen toogee tuuti président euh, li mu leen digoon def ko surtout 65 emplois ngeen def ay yëngu-yëngal juste quelques secondes ñu tàggatoo. non fu mu toll nii. Hmm, da ngeen di seral. comme nee na le 22 avril incha allah dina euh, organiser conseil présidentiel. Mhm. sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Mhm. te ñu invité invité jeunes yoo xam ni yor nañu ay kuréel. Mhm. pour effectivement ñu dem échanger proposer ko ñu déglu ko ñu xool tam la la ñu kii donc diggante gi nii mënuñu yëngu-yëngal dañuy xool après loolu. Mhm. effectivement dañ koy may temps xool dañ koy mais temps mënta yàgg parce que 22. moom jot na ngeen di toog tuuti xool. waaw mais après le 22. Mhm. bu fekkee ñoom dañuy continuer wee ci loolu. ñun dinañuy dinañu wee ñu lu ñu nekk dinañu yëngu-yëngal. ay Yankoba Sagne waaw te euh, yëngal bi du yem ci ah. ci direction DER ak ministère yi de. Hmm. dafa fan la ñuy dem. pale la ñuy dem palais ngeen di dem. palais la ñuy dem nañu jàpp tëj su ngeen laajee Guy Marius Sagna du ngeen dem palais de. gii mari Marius Sagna. jeune la comme ñun. bu ko Guy Marius mënee def. waaw te mu am xëy. waaw ñun ñu amul xëy. te yaakaar am xëy. mais Guy su ngeen ko tàggoo du ngeen dem pale de. parce que ah ba mu demee palais dañ koo jàpp tëj. mais tëj waaw. est-ce que bu mu jógee ci tëj gi daa dee. non du mi ngi continuer. <laughs> waaw ñun tam dinañ fa dugg ba génn du ñu dee. ay ñu bàyyi te nga may ma tuuti. waaw euh, ma interpeller ministre euh, commande de la fonction publique Mariama Sarr. Mm-hmm. Mm-hmm. di koy naan fonction publique du moomeel boppam. Mm-hmm. fonction publique pour sénégalais yëpp la. cinq mille quatre cent kii comme quinze jeunes la ñu déclaré woon en deux mille euh, quatorze ni ñoom kii deux mille dix huit ñoom ñoom la ñu war a recruter ci publique. jusqu'au moment où vous parle deux mille rek la ñu jëlangum. voilà te chaque jour ñu ngi dugal ay donc reliquat bu trois mille boobu nag bu des. na ko continuer recruter de façon transparente jërëjëf ñu ngi koy remercier bu baax a baax ba Sagna nekk membre actif euh, du regroupement des diplômés sans emploi euh, du euh, Sénégal ñu koy remercier bu baax a baax di remercier jaawo Diallo bi nekkoon ci technique bi ak yéen auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures mën ngeen émission bi ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com ba samedi prochain incha allah jaa jëf